الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبحث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار ñu ngi sant yàlla doomu ndey mbokk julit ñi ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam bari bés pénc yàlla nañ ci yàlla boole doomu ndey yi mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu taxaw ragal yàlla fu ñu munti nekk ñu xam ne ci loolu lañ mën a amee teranga àdduna ak àllaaxira doomu ndey yi mbokk jullit ñi yaakaar naa leeral taqwa du nekk loo xam ne lu bees la ci suñu jotaay yi ndax bëri na ay xutba yu bëri yoo xam ne leeral nañu lan mooy ragal yàlla te muy diplôme boo xam ne moom la ñuy séntu ci weer gu màgg bi ñu ngi leen di ndokkeel ci weer bi mu nekk weer boo xam ne weer bu barke la comme ni leen ko waxee woon aataakum ramadan shahrul mubarak dikkal nañu li nga xam ne mooy ramadan waaye mu nekk weer boo xam ne weer bu barkeel la doomu ndey mbokk jullit ñi weer la boo xam ne bi mu teroo la yàlla ak seytaane yi nga xamante ne yu féttéer wi lañ mooy seytaane yi nga xam ne tey ñoo ñuy yàqal xeetu jaamu yàlla yi seytaane yu ñu fatt sonal ñu weer bi yàlla daf leen di jéng teg leen fële waaye weer bi la yàlla bi weer bi feeñee la yàlla daal di joxe ndigal ñu tëj buntu safara yi ci weer bii la yàlla joxe ndigal ñu ubbi buntu àjjana yi waaye weer bii bi mu feeñee ba keroog weer bi di deewaat chaque jour yàlla dafay repêché ay doomu aadama di leen génnee safara di leen yóbbu àjjana doomu ndey mbokk jullit ñi weer bu màgg a ngi nii weer boo xamante ne ëpp naa def nit ki sàggan ci buñ ci nee sàggan nag mooy nit ki nekk ci ay mbir yoo xamante ne daf koy xañ yiw yu nekk ci biir weer bi doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi nekk ci weeru koor bu ñu nee weeru koor nag dañ ciy tudd li nga xamante ne nii moom mooy bakken te tey suñu xutba ci foofu lay doxantu li benn mu xaddima la woon boo xam ne dañ koy ubbee waaye di bàyyiloo xel bu baax tamit ni weeru kooru ren demee ndax jàngat bu rëy lañ ci war a def am na ñoo xam ne gisoon nañu weer bi ñu rawanteeg ak commission nationale ñu rawante benn fan bi àdduna bi séentoo te fan boobu ñu séentu nga xam ne commission nationale séentoogul nekkoon ci 28 ñoom ci la ñu séentu ànd ak waa Màkka ànd ak àdduna bi yépp ñu séentu yàlla nëbbu weer bi kenn gisu ko ci àdduna bi mu xëy la lande bi mu ne fàng fàngaaral àdduna bi yépp gisandoo ko ñun ñépp ñu woorandoo lu jafe am ci àdduna jullit yi àdduna bi yépp woorandoo ci benn fan kon lii yàlla jàngal nañu fi lu bari muy muy yërmande waaye jàngal nañu fi ndekete ñun mun nañu woorandoo ñun ñépp jàngal nañu fi ndekete du sax gox ngay xaar pour gis ko jàngal nañu fi ndekete du waa màkk daf ñu rayoo benn fan dañu war a woor après ñun ñu doog a woor mun nañ ci jàng lu bëree bëri waaye doomu ndey mbokk jullit ni nii ñu yàlla benn loowee ci weer bii ba ñu àndandoowee ko nii début boo xam ne début bu positif la moo tax séntu nañu ay xéewal yu bëri ci biir weer bi te loolu yàlla yomb na yàlla yàlla nañu ko yàlla defaral rawatina stabilité bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci suñu réew nga xam ne jaxasoo na fu nekk a ngi tàkk fu nekk a ngi yëngu te dara waralu ko lu dul bakken bii moom moo ñu ko yóbbee te moom la ñuy waxtaanee tey doomu aadama yi am nañu njortu ci yàlla nu mu ñu ubbeelee weeru koor gi di weeru xéewal di weeru naataange dina fi indi barke boo xamante ne daanaka dinañu dund ba nekkaat ci li nga xam ne mooy stable loolu yom na yàlla yàlla nañu ko yàlla defaral doomu ndeyu mbokk jullit ni yàlla daf ñoo jàngal benn saar saar boo xam ne buñ ko mokkalul tamit ñun ñëpp miin nañ ko muy wa shamsi wa duhaaha wal qamari ida talaaha wan nahaari ida jallaaha wal layli ida yaxshaaha was samaa'i wa ma banaaha wal ardi wa ma tahaaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha yàlla giñ na ci saar bi façon waat yoo xam ne waatu ko ci benn saar léeg-léeg ñu jàng laa aqsimu bi haazal balad léeg-léeg nga ñu ñu jàng wal fajiri wala yaaleen ashur yooyu yëpp ay waat la waaye saar bi yàlla daf cee giñ fukki giñ ak benn fukki giñ ak benn mu am lenn dong lu waral mu waat waat yu bëri yëpp te li mu waat yëpp lu am solo la yàlla moom moo am sañ-sañu waat ci li ko neex yàlla bu ko neexee waat ci jant bi comme ni mu ko waxee wa shamsi wa duhaaha ak ak yoor-yoor bi nga xamante ne jant bi léegi nag leer na nañ bu ko neexee mu waat ci loolu waaye lu am solo la tey gis ngeen la ñu wax ci yoor-yoor ak naafila yoor-yoor kon yàlla du giñ ci loo xam ne amul solo doomu ndeyu mbokk jullit ñi yàlla moo waat di waat di waat ci ay créature am di waat ba yegg si si bakken kon loolu lu muy jàngale mooy bakken bi mu waat lu am solo la ndekete doomu ndeyu mbokk jullit ñi man sañu maa waat ci leneen lu dul ci yàlla rek laa war a waat bés bu ma waatee ci leneen lu dul yàlla bokkaale naa yàlla yàlla moom moo ko wax yonent bi jottali ñu ko yonent saa salaam nee na kuy waat ci yéen na waat ci yàlla wala mu noppi te waat lu muy firi mooy seedeloo fi ngay seedeloo amaana sax yaa ngi dëgg kon jarul sax ngay waat parce que moom moo la gën a xam moo tax ñu ne moytul naafiq parce que dafa ñeme waat kon nit ki bu fekkente ne mu ngi si dëgg ki muy seedeloo muy yàlla jarul sax muy waat waat fi nga xam ne foofu la amee solo dëgg mooy jamono bi nga xamante ne nit ki am na problème ak soxnaam par exemple gis na soxnaam di njaaloo wala soxnaam gis ko ñu ñu demante ba si yoon ku nekk di weddi foofu yoon daf leen ne waat leen te bu ngeen waatee ku ci nekk après waat bi am na ñaan bu muy ñaan après ya ñu bàyyi yàlla àtte kon bu dul loolu jarul sax doomu aadama bi di waat kon yàlla moom moo sañ waat ci lu ko neex waaye doomu aadama buy waat dafay waat ci yàlla wala mu noppi doomu nday moo ko julli dox yàlla giñ wa nafsin wa ma sawaaha benn mu xaddima rek la ñuy wax boo xamante ne xëy na xale bu ndaw bu doon déglu xutba bi dina dégg fi ñuy waxee dañu xool suñu oto yi tey ku ma jënd oto nga jënd oto ñu bokk benn jour bu ñu jënd oto yow sa oto nga respecté entretien wu oto bi di ko toppatoo bu laajee vidange nga def vidange bu laajee lu mu laaj yaa ngi koy def oto bi boo ñëwee ci bax sax booy dugg nànk ngay dugg ngir yërëm oto bi man mii sama oto respecté wu ma loolu du ma vidé du ma def dara fu ma jot mbëkk oto bi fu ma nàngam bu ñu dawalee un mois ñaari oto yi ndax dinañ niroo bees tontu bi mooy déedéet te loolu mbiru àdduna la mën nañ ñëwaat ci beneen exemple boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ciy teg suñu bopp suñu bët tey fas bi fas yi ngay gis ñuy daw ñu leen tàggat takk leen saret xëy na ñi nekk ci àll bi ñoom ñoo may gën a xam li may wax tëbuñu rek ñu takk leen nii rek takkal leen ngalab bi nii rek ngay dab muy dem mu yombee noonu déedéet balaa mu ko min fu ne borom jaar na fa ak moom dugg ak moom ci àll bi tàggat ko di dóor muy muy rëpp lu ne mënu ko def ba keroog muy dem ba miin nga xamante ne boo ko takkee ngalab bi boo ko jaru sax ngay seere boo ko yolomalee boo ko ne acca mu dem waaw comme fas bi la ñu mën a tàggatee noonu ba mu nangu waaw wa kay fa bakkenu doomu aadama bi ñu ngi ci weer boo xam ne weer la boo xam ne pour nit ki profito tàggat bakkenam doomu ndey mbokk jullit ñi bakkeni ñett lañ te ñett yëpp ñëw na ci alquran dafa am bakken boo xam ne dañ ko tuddee an nafs al amaara bi suu mu ngi ci suuratul yusuf am na benn bakken boo xam ne ñu ngi ko tuddee an nafsul lawaama mu ngi ci suuratul qiyaama am na bakken boo xam ne ñu ngi ko tuddee nafsul mutma inna moom moo nekk suuratul fajiri ñetti bakken yi moo am bii bakken an amaara bi suu moom ci lu bon rek la lay xiirtal an nafsul lawaama moom daf lay yedd boo bëggee def lu bon bu ëpp naa def te ngaa bàyyi ah nafsul mutma inna mooy ma bakken bi nga xam ne nag moom tàggatu na ba yar boppam ba dootul defati lu bon yàlla daal di koy woone ko urji'i ila rabbiki raadiyatan mardiyya fadxuli fii ibaadi wadxuli jannati yàlla nañu yàlla boole ci bogorom bakken yooyu doomu ndeyu mbokk jullit ñi yàlla mu ne wa nafsin wa ma sawaaha yàlla nee na maa ngi giñ ci bakkenu doomu aadama wa ma sawaaha ci ni ma ko defaree jekk-jekkal ko xool su tey suñu bakken nu mu taxawee rafet waaye aaya bi gën naa xot mool bii ko yàlla mool mu rafet lool dem na ba yegg nafs nafs bi mooy jëmmu doomu aadama bi wa ma sawaaha ni ko yàlla defaree ba mu rafet fii ay suurati macha allah rakabak yàlla daf la defal jëmm bi mu rafet lool dara pattul dara làggul tey ku judd ci ñun indaale nga appareil bu normal fas bi bu juree doom bu juddoo lu muy doon fas lay doon du manqué dara topp topp way juróom di cëlli cëlli da kazaalika xar bi kazaalika nag bi nit ki tam bu juddoo nit lay doon indi jëmmu nit yëpp léeg-léeg da nga gis koo xamante ni dafay juddu indaale laago wala mu indaale lu manqué ci moom wallahi jógewul fa yàlla nañ ko xoolaat bu baax parce que seytaane daf ñuy dikkal dafay dikkal suñu wayjur yi ba bu fekkente ne dañoo sàggan seytaane jaare fa làggal doom bi moo tax ñu ne jigéen bu fekkente ne borom këram mu ngi sëy ak moom avant ñuy yegg ci sëy am na ñaan bu ñu war a ñaan ban ñaan la ñuy ñaan mooy yàlla musal la ci seytaan allahuma janni bi seytaan allahuma jannib naa seytaan wa janni bi seytaan maa razaqtana yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci seytaane ñun ñaar ñii di def rapport waaye nga musal sey musal seytaane ci sëy bi ñu sëy li fi li si nar a judd kon yaa ngi tàmbali foofu di dàq seytaane ci li nga xamante ne mooy nekk ci yow boo toppee sa sa bànneexu bakken nag ba loolu taloo ko ndax yàkkamti fàttewoo loolu bàyyi seytaane mu bokk ci sëy bi bu boobaa lu nekk mun nga ko indi jigéen day toll ci sëy lu nekk mu sol ko jumbax yeeg lépp nekk ci biti amul benn problème su ko neexee su neexee yàlla mun na jur lu complet amul benn problème mais su ko neexee mu bàyyi koog seytaan te su ko bàyyi seytaan du indi lu baax kon képp koo xam ne judd na dafa judd ci matériel appareil yu complet appareil yoo xam ne appareil yu baax la yoo xamante ne amul sikki sàkk ka ne lii kat fu mu jóge ci yàlla fu baax la bu yàqoo kon ci kan la kon ci ñun la yàqoo moo tax yoon saa sala wax ñu ci xadis ne ñun ñëpp képp ku judd da nga judd nekk si fitra nga juddoo da nga judd set wecc judd yor appareil bu baax waaye nag dañuy dem ba si biir ki nga xam ne moom la ñu dénk bakken boobu muy wayjuri ñoom ñoo koy soppi imma ñu def ko mu nekk nasaraan wala ñu def ko mu nekk yahud wala ñu def ko mu nekk majus mooy ki ñiy jaamu safara kon doomu ndey mbokk jullit nañ taxaw si loolu bu baax moo tax yàlla ne bi mu ne wa nafsin wa ma sawaha lu mu wax mu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yàlla bi mu bindee bakkanam daf ko daf koo tàggat ak ñaar léegi nag après nit nit ki moom mooy mooy def libre choix ci ban la war a orienté boppam yàlla dafa def ci moom fu jaar moom mooy daf daf ko nosaale kàccoor daf ko nosaale koo xamante ne def katu tappale la waaye dam mu nosaale ko koo xam ne ku ragal yàlla la ñaar yëpp la bakkan bi indaale fal ahmaha fu juuraha al fujaar wa taqwaaha ak ragal yàlla ñaari la si la yàlla def ci bakkan bi léegi nag bu ñëwee ay wajuram ñoo koy orienté ci benn bi wala moom mu dem ba màgg bugg topp bànneexu bakkanam tey jii su ma defoon naka sudul noonu lu ñuy wax dafa topp dafa topp bakkanam loolu la ñuy wax lan moo tax ñu ne dafa topp bakkanam parce que naka sudul noonu laa def kon nit ki bu nekkee sàcckat wala mu nekk trian wala mu nekk ku soxor wala mu nekk ku iñaan wala mu nekk naankatu sàngara wala mu nekk wala mu nekk wala mu nekk xeetu yu bon loolu moom moo choisir jël yoon boobu waaye yàlla moo ñaale woon na bakkan bi li nga xam ne moom mooy ragal yàlla kon lii nii moom mooy mbir bi nga xam ne mooy wàllu bakkan ñu nekk ci weer boo xam ne nag weeru tàggat la yàlla yeewal nañ seytaan tey suñu bakkan yee fi nekk lu waaye def naka sudul noonu ci weer bii bu mu ko jiñ seytaane bu mu ko jiñ seytaane de yàlla takkal nañ seytaane tegal ñu ko fee suñu bakkan yee fi nekk te weer la boo xam ne weeru yar bakkan la bakkan amul lu muy ragal faalewul safara waaye ñemewul xiif tey nga jàkkaarloog frigo bee ngi nii lépp lu la da- dagat nekk ci nga ne du ma ko laal du ma ko lekk parce que damaa wóor sa soxna mu leew la lool nga ne du ma ko jege parce que damaa wóor un mois waaye tàggat nga bakkan bi comme ni ñu tàggatee fas bi ba mu tegu tali bi bu na daw normalement kon ngal la waay boo jógee ci weeru koor gi tàggat nga weeru kooru lëmm lu la dagan nga moytu ko sori ko doo ko laal parce que da ngaa wóor waaw mais ngir yàlla boo dogee weeru koor gi jeex na li la xaram moytu ko kon lii lañ ci war a jàng yàlla nañu yàlla may dégg ak topp aquli xawli haza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ñu ngi santaat yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu nangu suñu koor ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu kàttan ak wér-gu-yaram boo xamante ne dinañu woor woor bi ni mu ko bëggee doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla giñ yooyu mu giñ yëpp fukki giñ ak benn ci sa wa shamsi lenn dong la ci jublu mooy lan xad aflaha man tazakka xad aflaha man zakkaaha wa xad xaaba man dassaaha lii de moo tax yàlla giiñ yàlla mu waat ak ku xam dayoo yàlla ci niñ ko fi leerale woon ci xutba yi passé xam yàlla mooy kan ak li mu sañ te moo sañ def lu ko neex faalu lima yurid lu ko neex lay def te kenn du ko laaj ñun ku def ci ñun dina wéet ak yow laaj la ba mel ni nga yaakaar ne yow kese la yàlla bind doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla giñ giñ yëpp su ko neexoon sax bañ a giñ te lu mu wax da koy def ndax yàlla bëggul kuy wax te du def mu giñ xadd aflaha texe na man zakkaaha képp koo xam ne yar na bakken boobu bakken boobu ñu leeral léegi-léegi yàlla nee na texe na képp koo xam ne yar na ko tàggat na ko mu tegu ci as-siraat al mustaqim seexlu lépp lu bon nit ki dafa war a yar bakkenam ba lu bon daf koy xeeñ ngeen baal ma ci wax bi ginnaaw kër bu jege def lu bon buy bëgg njaaloo buy bëgg jël yëfu jàmbur buy bëgg def naka sudul noonu daf koy xeeñ ni ginnaaw kër kooku mooy ki yar ba kenam seytaane wallahi azim ku ci nekk xam na fu muy jaar ak ñun ku ci nekk loolu spécialité boobu noonu yàlla moo ko may tey am na koo xam ne du jaar ak moom mukk ci njaaloo parce que xam na bu fa jaaree du am du am lu mu bëgg su ko xeeñcoo rek xam na ne kii du njaaloo la war a jaar ak moom am na koo xam ne du ko du du ko jaarale mukk ci bokkaale yàlla dem na dem ba du xeeb sax ba sëy jaamu yàlla mu xam ne kii mënu ma ko bokkaaloo mënu ma ko njaalaloo mënu ma ko naanloo naanoo sàngara mu ñëw sax ci sa jaamu yàlla yi ngay def naan la tey nga koo defee nii tey nga koo nangami nii nga koy defee noo xam ne sax yonent bi daaw ko def kon seytaane amul lu muy xeeb te spécial la ci loolu kon képp koo xam ne góorgóorlu na yar li nga xam ne mooy bakkanam nekk na koo xam ne ku texee comme ni ko yàlla waxee moo giiñ wax loolu xad aflaha man zakaaha waaye nag wa qad xaaba man dasaaha ñàkk na texe di torox na koo xamante ni nii yarul bakkan boobu kon ñaar moo fi nekk yar sa bakkan wala ñàkk yar sa bakkan te weeru koor a ngoog dugg nañ ci ci jàmm mu nekk moyen boo xam ne comme ni nga ko waxee nit ki yar bakkanam comme yaay yar sa bakkan ci lu dagan ci yow ngallaawaay boo génnee ci koor gi yaral sa bakkan ci li nga xamante ne mooy li xaraam ci yow ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا افرج علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الاحياء والاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله